dégg ngeen wax bi ñu alal daan wax ndax far am na responsabilité bay seet lu mu war a wann te waru ko war a wann mu yàbbi ko laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wa tudlu biha li taakulu fariqa min amwaali naas boo koy meer wax na lu am solo te daanaka li tax allahuma yëpp nangootul foofu rek boo xam ne ki makaluhu xaraam mashrabuhu xaraam anna yustajabu la benn xale baay bi daf ko yóbbu ci Seydina Omar ibnul Xataab di ko boole Seydina na Xataab janoo xale bi di ko yedd mu ne ko ah kilifa de da daan maandu Seydina Omar ni ko lan mu ne ko laaju looma moom rek nga déglu man mi mu dé kàllaama si dégluwuloo ma kon waroo gaaw a atte ndax fii nga toog palaasu rasulillahi mu ne ko laaj ko ndax sama yaay baax na ndax laaj koy dépense bi muy dego joxe dagal na wala dagal te man ca dépense balaa juddoo kon mbokk yi xaj taala wax na lu rëy xamatuma daal lu may wax ca dëgg-dëgg. waaw waaw may wax laa taakulu mu ne kulu yaay wax naa su kulu mi maa fi xalaala wala tayammamul xabiita minhu tunfiquuna wa lastum bi axidi illa an tuxbitu fiihi wallahu alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yaamurukum bilfahsha wallahu yaidukum mafiratan minhu wa fadla wa ñu bëree gi fande ngir ñàkk xam li ñuy lekk fu muy jóge maamu Cheikh Alxaaji Maalik dafa war benn fas jëm si Njaasaan jamonoy nawet fas wa ŋànk catu gerte dagg ko sàqami ko mu wàcc fas ñu ne ko góor gi waaw mu ne sama fas de dafa dagg catu ngooñ mi amatuma droit faj ko ndax kattan gi ci loolu la jóge kon na borom tool bi ñëw ñu ne ko lii de jaru ko mu ne déedéet jaru ko ci yéen waaye jar na ko ci yàlla misqaala zarra zarra foo koy gisee ci loolu appareil appareil yu koy mën a tegi bët ah microscope yi koy mën a gise tabaarakallahu ah yàlla yàlla jàppale la ñëpp Sénégal gi yëpp fii la war a dellu si lekk loo moom lekk loo xam te mooy kàttan gi ngay am doom ji ci duddoo nga di ci liggéey di ci ñàkk te lépp lépp teewul ci yoon bu ngeen demee ci mawazinul quran benn téere la mm-hmm. inna allaha yaamurukum an tu addul amaanaati ila ahliha damay liggéeyi jëm bureau yor sama oto huit heures cinq ma jënd benn l'observateur dem baag si bureau bi huit heures pile jot nu may def ah ma liir soleil te heure te heure heure liggéey bi minute yooyu ma ca jël ndax war naa ko fayu buñ delloo ci lislaam rek mbokk yi xam nga xef ak xippi gaa yi dañ ko doon jël ci carte ñu ne ñëwul ci alxuraan illaa mi tuxmidu fii waalamu anna allaha ganiyun a cheytaan jërëjëf man bi ñuy waxee suma adduna tukki mi de saxamatuma sax lu may def jërëjëf jërëjëf addaalatu xikmatun nu mu tuddati addaalatu nu mu ko waxee waaw waaw alxikmatu dallatul mumin foo ko jëlee rek jëlal bu leen ne bu leen ne ku sant si rek laay déglu wala ku sant mbàkki déedéet foo ko déggee te muy dégg jëlal ñun loolu moo ñu tardeel déglu soo kenn dul ci benn côté déedéet l'islam fu mu xas ba jibee rek déglul la ca euh, euh, bul déglu kay wax déglul la muy wax benn xale daf ñu fekk ci loon 67 ñu toog di jàng waaye sunu sëriñ ki ñu jàngal sunu magu daara la taar ba demewul noonu xale bi di jàng si nag fekk ñun ñu toog moom di jàng di jàng seet bu ne ana sëriñ bi ñu ne ko mu nii xam na sëriñ bi ni mu bàyyee ko bàyyi yaram yi tam yekkul mu toog si yàgg mu ne ñu pare mu ne ana sëriñ bi ñu ne ko kii mooy sëriñ bi mu daal di jógaat mu jël bagage am di dem. léegi ba ca buntu ba góor gi ne ko hey doom mu ñëw mu ne ko boo demee cib sën tànnal la nga soxla te bàyyi fa salte ba yow fii la sa xam-xam nekk toogal moo tax xam-xam foo ko gis dégg rek bu ne ah kii di lay wax rek mais tabaarakallahu Sénégal yàlla ñu yàlla delloo si. yàlla ñu yàlla delloo si yàlla ñu yàlla delloo si. Euh, buñ doon génne asaka lii ñu dajee duñ ko def foo indi léegi asaka léegi amatul ci senegal ba pare ñu bëgg sunu julli nangu ah ah lépp day tàkk lépp day tàkk asaka fii ak ah, te itam ki am asaka di julli te joxewul asaka julli nga taxawul julli nga taxawul duñ ko nangu duñ ko nangu jamais jamais ñu nangu ko xarinaam la mu ngi mel ni rek kersa ak ngëm yàlla xam nga senegal est-ce que fi ah kon ngëm yàlla dem na ñoom ñaar xarit na la ñu bu ci dem yóbbu marom ma bu ci dem rek bu ci bu fi kersa jógee rek te kersa ñu bari jàpp nañu ni mooy nga gis sëriñ bay rus ko boo rusul yàlla koy rus ar rasu wa maa waxaa ku am kersa lépp looy sàmm jiitalal bopp bi ak li mu ëmb bopp lu mu ëmb tuuti na lool waaye taskatu àdduna ak tuuti moom làmmiñ ak tuuti am na ñaar fukki ayiba ñaar fukki gaaf ak juróom-ñett wala juróom-ñeent benn baaxu ci benn baaxu ci ñaar fukki gaaf ak juróom-ñeent benn baaxu ci moom làmmiñ réew mi de wax xew ah wax a xew moo tax bàkkaar a fi ëpp mm-hmm. te nag xoolal rek wala taqfu maa laysa laka bihi inna wal wal maa yalfadu min qawlin ah <laughs> kii wax kan la est-ce que kon umpale na dara te ñun fi mu toll loo xam ak loo xamul sa yoon a ngi ci te nit warta taxaw ci lu mu xamul seen maam Abdou seen papa Abdou Aziz te ñu toog mu léemu ba tëdd ba pare ñu toog pour mu nelaw ñu toog di waxtaan mu ne sëñ Babacar du ngeen di wax man papa dañuy waxtaan mu ne ci lay fenn di jógee waxtaan mu ne ci la fen di jógee mu ne wax ñeenti tànk la am yàlla na fekk yaa ko war a wax la ngay wax yàlla na loola fa nga koy waxee yàlla na béréb ba ña ngi koy waxal yàlla na ñuy borom wax ja bu ci manqué bul noppeeti amatuloo droit ci wax li ngay wax yal la ngay wax. Ah. yow miy wax yal na fekk yaa war a wax. la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a. fa koy waxee yal nay. ñu ngi koy waxal. est-ce que amati na. defee nag ñun it il faut que ñu tàllal loxo. wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa nit fii joxewul lu mu bëgg. àggagul ci tabe. fekk nga soxla ko nga àgg ci soxla gis ku la gën a loru nga jël ko jox ko toog. yut'imuna ta'ama ala xoolal rek miskina wa asira innama nut'imukum li wajhi la nuridu minkum wala inna naxaafu min rabbina yawman lu ñu waxoon nag ma salakakum fi saqara qaalu walam naku wa kunna naxuudu wa kunna nukazibu xatta ataana buñ ko toppee duñ fi jóg duñ fi jóg duñ fi jóg il faut nit ki ci boppam moo war a la Xaaji Mansour waxoon fekk dama toog ak góor gi benn bis di jóg di dem benn béréb mu ne mbaa xam la lañ fay wuti ndax boo demee toppatoo ko mu sotti nga dellu si bañ faa toog boo fa toogee ba jot ca loola boo fa toogee loo fa def ak yow sëñ Xaaji Mansuur ni wa xaasibi nafsa fi dunia muxaasabatan qabla alqiyaamati tarbax duna xusraani fi mu nii ku ci dem boo sorne rek sangu daal di tëdd war ko waroo tëdd te rek léwulool ci bëccëg bi li nga fi moom ak loo fi moomul loo fi def loo fi def ah, dem tëdd wóorul bis boo xëyee borom bitig bi nu muy def bu tijjee bitigam balay jaay dana xool lu mu ci leble ak lu mu dese soog di commencé jaay bu demee ba une heure muy dem dana xool lu mu jaay ak lu mu bu demee bay tëdd rek la yëpp soog di tëri mais sa dundu geeg ñoom marchandise bi bu gën a seer kii fi jox léegi xeeb na ko waaye seconde bi mu ñu may milliard delloosi wu ko seconde bi mu ñu may ci dundam milliard mënu ko delloosi te xeeb na li mu fi def bu ko defee nag ñun ñëpp ñu àndaat rek jàppoo jàppalante c'est que ñun daf dañ ñoo waroon roy waaye comme que defu ñu ñu war a def nañu roy ñun jullit yi. dañoo waroon roy am na ay ay cabine sant yoo xam ni jullit yi moomuñu ko ñeneen na ko moom di jàppalante ci seen biir boo fa demee yow au moins nga fay 1000 francs wala dara ñun amatuñu boobu tax ñun daal ñu ngi daal foofu rek laa mën a yem mënumaa wax li sikki bi yëpp mënumaa wax sikki bi yëpp mënumaa wax sikki bi yëpp wax sikki naa ko ba tey waxoon naa ko yaag yàlla kan jaamuwul iyaaka yàlla julliwul woorul ajul ci Seydina Muhammad rek la jullee iyaaka yow dong naabudu la ñuy ñan yéen ñan ñun jullit yi wa iyaaka ci yow lañuy ñuy sàkkoo te du ñu dimbalante ihdi te kenn bëggoo kenn ku tegu ci yoon te ba nga ne ihdina siraatal mustaqima xam nga siraatu ban nga wax alladina anamta alayhim minan wa si wa wa wa xasuna te yow yéene woo kenn sa bopp rek nga bëgg a demal jàmm jii ñuy wut te moo di wér xam nga wér ku ko amul doo mën a jàmm yàlla ku ko amul doo mën a liggéey nga ni assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa assalaamu te ñu ko kenn yooyu mën a téeméer dimbale kenn lii ñu leen di laaj pour dimbale ko nit ñi boo ci nee joxee danga nga koy calculer ba tàyyi mais dafa am ku la ko joxoon. wa anfiqu mimma min qabli fa yaqula lawlaa wa akun nafsan a jaa ajaluha toog ba naan yàlla may ma nekk ma dépensé ndax maa ngi dem déedéet déedéet te wërsëg. du li nga dajale wërsëg mooy li nga jëfandikoo ar rusqu man bi bihi wërsëg mooy li nga jëriñoo du li nga dajale li nga dajale yëfi jaamul la boo ko joxee borom dana ca jot boo ko joxal mu jot kon profitool joxe ci tabaarakallah tabaarakallah yal nañu yàlla jàppale jàppale leen bu baax jàppale maire dégg nga ni mu wax ni li mu liggéey lépp li mu fi joxe lépp Cees la am na ñu fi jaarta joxe wuñ ko Ah, kon mawqifam il faut que ñu sant la bëggaloo ko danga nit yow mais bu dul sa xalaat du génn te loolu la ñuy jote joxe jote euh, lool lañuy ñuy euh, doye liggéeykat xam nga liggéey du coow lu bàyyi euh, ngeen baal ma xàq damay jël ci seen maam ju toujours problème <laughs> dana kii damay jël ci maam toujours dafa ma daan jaajenti nag daaw ma yëram góor gi lu mu metti metti mu jaajenti ma dafa am benn bis euh, ci lekk laa koy njëkkee ci néeg yaa ba dama lekk ba fu ma ni ma kaay lekk ma ne ko suur naa mu wax ma ne ko mu ne ma di lekk rek man tey ñu reer ba pare rek ma fàtte mar sama loxo te dugal sama loxo ci ndox mi mu bàyyi ba ma raxasu ba pare mu ne ma naanal ndox mi yaa fàdd ba ni ko maraaba déedéet mu ne ko def ko yomb bàyyi ko mu naan ndox pendant trente minutes ma naan ndox mi mu ni ma faral pepp yi daan ci biir benn par benn nga seet ma seex pepp yëpp bëgg a jot mu ni ma déedéet yaa faat bu ni ko def na li muy def ba pare bàyyi ko ma def mu ni ma déedéet toogal ma toog ba géex mu ni ma jógal doota kooc moo ko gën a sedd foofu <laughs> man loxo gën a sedd gis nga moom laa gis mu fekkee erreur boo def tawaxu la ko danaan fekkee mu ci bu baaxee nga am ca bu bonee nga am ca ba pare ne nag waqad nuzila aleykum fi kitaabi an ida samiatum ayati llahi yukfaru wa yustahzabu booba fala taqa'utu xam nga li ma yéem mooy kilifa yëpp a ngi noppi te xam nañu li xel ñëpp a ngi noppi defa ni mucc nañu te mucc ñu ñu ngi xam li xew te kenn ci ñoom génnul wax